ci wàllum politique yow lu jëm moom ci wàllum sport administrateur du fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'Est jërëjëf Badou Magna si générique bu am solo boobu nga ñu dafal di la gërëm yow ak waa groupe xalima yëpp mbokk yéen tamit ma leen di nuyu di leen gërëm di leen sant si fidélité bi ngeen ànd ak seen rajo xalima ak seen site xalima sn point com Seydina Seck fas yéene dellu si ak yéen fii seen émission dox daje nu ñu ko baaxoo daan defee ajuma bu jot daaw ba ren ngeen nekk seeg ñun lu ko dalee première saison ba ba tey jii ñu fas yéene ñëw commencé seen première émission si saison 2 bi d'après nag suñu statistique ñu tiré woon ci bilan bu am solo te lépp rek yéen la moo tax xalima di leen gërëm di leen sant ba dañ ne gannaaw bu lëkk lekkee aloom na ko gërëmee coy di leen gërëm di leen sant fas yéene delluwaat buum ca booy booy ba maanaam ñëwaat ci ak yéen ci dox daje ci beneen fem bu gën a mucc ayib dox daje nag nekk na émission bi nga xamante ni yéen mbokk yi yéen a ko moom lépp lu jëm si dundin doomu aadama bi lañ fiy waxtaanee moo xam mu jëm ci wàllu sport moo xam mu jëm ci wàllu politique moo xam mu jëm ci wàllu culture moo xam mu jëm ci wàllu wér yaram dox daje bàyyiwul dara dañoo nekk si yoon rek di dox te ku nekk si yoon nag di dox faaw nga dajeeg ku ne moo waral tey ñu fas yéene feek dajeeg benn soxna ki nga xamante ni moom la président jël lu doy ni FAISE muy fonds d'appui à l'investissement des sénégalais de l'extérieur ak financement bi nga xamante ni moom la ñu war a jël financé ko femme diaspora bi kooku la ko président dénk coow lu bari ñi naan xaalis boobu militant APR lañ ko jagleel ñi naan ngir Macky gën a mën a jëlaat diaspora bi la lépp lu si mën a am rek soxna si dina si ñëw ak ñun dañuy faral nag di wax naan ku ku bot bukki xaj mbow la kooku moom lañu fas yéene dajal tey ñu naan ko soxna Naata Samb Mbacke mu fas yéene ñëw indil ñu ay leeral ci fon boobu lu ko tax a jóg ñan lañ ko war a jox yan critère nga war a remplir pour mën ci bénéficier wu ak ay yënguteem ci wàllu politique lépp dinañ ci ñëw ak moom soxna si ñu ngi lay nuyu di la dalal di la ziar fii ci rajo xalima maa ngi leen di bi jërëjëf ci invitation yoo tamit ñu ngi lay gërëm seen li nga ne pour ñu invité la suñu émission dox daje. laataa loolu sax man soxna Naata Mbacke la ñu bëgg a xam moom mooy kan d' waa jërëjëf sëñ bi euh, man maa ngi tudd soxna Naata Samb madame Mbacké maa ngi dëkk Sénégal fa laa juddoo fa laa yaroo maa ngi jàngee lycée Vanvo après Castor Derklé lycée Vanvo maa ngi dugg def naa tamit anglais departement d' anglais ba am fa maîtrise ba ma ci loolu liggéey naa Enda euh, Tiers Monde laa ñu ko liggéey Sénégal hmm. après stage yi ma doon def ay britannique ak yooyu mais def naa. liggéey quatre ans inda euh, moom hmm. système et prospect système et prospective département la woon boo xam ne hmm. ñun ñoo euh, étude de projet avec hmm. ak di jël euh, banque mondiale ak PNUD yi projet yi nga xam ne am investissement étranger ñu di ci dëkk bi ça m'a permis de faire vraiment le tour du Sénégal dans ce projet parce que c'était des Américains ou des Japonais bu bëggoon def ay kii chaque fois ñun ci team boobu la ñu bokkoon ñooy ànd ak ñoom hmm. dem sur le terrain xool la faisabilité des projets hmm. à part loolu nag ñu amoon tam un projet américain foofu bu nga xam ne dañuy envoyé des étudiants sénégalais américains au Sénégal hmm. chaque année pendant neuf mois ma nekkoon assistante coordinatrice bi ak benn américain bi mu demee ma yore programme boobu donc foofu nag lañ ma mayee bourse en 1998 la génn Sénégal am bourse pour dem jàngi ji aux États-Unis bi ma yeggee foofu dama bëggoon dem pour def MBA wala doctorat en anglais mais j'ai vu un field bu ma intéressé muy développement administration ci laa dem jàngaat ci am ci sama masters ma pare en 2000. mille bi ma pare aussi ma gis foofu benn école internationale comme éducation ak développement bi ma intéressé école boobu jël ma ma di fa liggéey nekk naa fa euh, conseillère académique hmm. nekk fa dean nekk fa executive directeur falaa ma sa liggéey falaa ma sa nekk vraiment am fa ay promotion Je suis won école bobu pendant 6 ans hmm. en 2006 laa fa jóge hmm. en 2006 la la jógee la la la commencé directeur donc 2009 la fa bàyyi nek nak di def sama consultance hmm. en 2008 e la créé une organisation Femme Femmes en action pour le développement parce que j'ai vu que les jigéen ñi dañ leen soxla ci développement dañ leen war a ci développement une fois je l'ai si benn émission la télé dama dem Sénégal jóge Touba romb ci naaj bu tàng benn jigéen mu yore paanu bisaab ak paanu buy ànd ak xale yu ndaw suñu def tànku neen ma nekk sama biir oto affaire bi frappé ma ma gaare ma ne ko soxna si li ngay jaay lan na sa doom yi yor tànku neen tàng na mu ne ma buleet bisaab laay jaay ma ne ko loo koy jaaye mu ne ma deux mille ak deux mille cinq cent ma jënd lépp may ko dix yi ne ko jëlal wecc bi nga dem mm. mais jox ma sa ay coordonnées Mwen demen sou mwen kèr, mm. mwen khalat New York ak Amerik. Mm. Ak si mwen dekite Amerik man, sou mwen fok la bouyèd bousa, pan bo mwen mwen mwen djaye 2500. Man, bi mwen mwose mwose, am lantye 12. Donkou pan 2500 mwen, mwen mwen akou jende 5 dolar fwa 12. Mwen chanje se mwen vizyon, mwen en akou mwen mwen nangye Amerik men, skam mwen loun mwen fay def. Mwen mm. ni komanse def an rizou de fam. bu nga xam ne dañuy jàppalante suñu biir c'est-à-dire man su ma mënee jënd quatre mille cinq cent bu yëg bu saab hmm. indi ko Amérique mën cee am bu nekk dix fois plus que li ma ko jëndee hmm. kon war naa mën a jàppale jigéenu Sénégal ci di jënd di indi fii ak jigéenu Amérique di lañ jàppale di jël ci ñoom hmm. au lieu bu ñu soxlaa dara dem ci mexicain yi wala leneen ak leneen donc su ma góobu développement ak loolu ci la bokk donc ma commencé nag sama doctorat itam yeggaleegu ma ko maa ngi moitié bi international development euh, administration donc développement administration lu ma yàgg def lu ma yàgg bëgg la hmm. chaque année tamit bi ma nekk Amérique quinze ans chaque année su ma demee Sénégal dinaa fexe jël benn institution ciblé ko def ay recherche wala ma def sa stage hmm. c'est ça que j'ai fait en novembre du passé nag hmm. la ma président de la République jox ndomb boobu administrateur du fonds d'appui à l'investissement des Sénégalais de l'extérieur dëgg la loolu yaakaar naa ni voilà loolu yaakaar naa ni leer na léegi tey fonds boobu nga xam nga yor ko anam noo ko fas fond bi dafa am fond bi ñu ko créé en 2008 décret la bu ñu créé woon 2008. Hmm. def fa administrateur. Hmm. def fa xaalis. Hmm. Euh, fond bi mu ngi nekkoon ci ay trois cent dollars par euh, trois cent quarante millions par année. mais président de la république Macky Sall moo ko yokk année bi def ko un milliard. Hmm. ba pare jël beneen fonds muy financement de la des femmes de la diaspora indi ko fii ndax comme diaspora bi ñi fa nekk ñëpp affaire étrangère sénégalais de moom mu jugé ne xëy na c'est plus facile ñu ko. Hmm. fonds bi dafa am ay chartes fonds bi dafa am ay mission mission bu ci njëkk mooy promouvoir les investissements à travers les sénégalais de l'extérieur mais aussi aider les sénégalais de l'extérieur hmm. à venir investir au Sénégal. mais dañ koy promouvoir nag ci ay investissement yu productif dañuy wax koo xam ne da nga bëgg a ñibbi wala ñibbi nga ba pare te mën nga prouver ne nekkoon nga extérieur hmm. mën nga ñëw demander ci fonds yooyu pour euh, benn projet projet yi mën na nekk agriculture mën na nekk agriculture lépp loo xalaat ne mën nga ko def hmm. te soxla nga fonds bu commencé ci cinq millions ba quinze millions hmm. te localisation bi Sénégal lay nekk loolu mooy frais traditionnel looloo ko tax a jóg nit ñi dañuy jóge nag dëkk bu ne il est am na xëy na dëkk yu ko xamul mais lu mel ni Italie ak Espagne hmm. soixante quinze pour cent des demandes foofu lay jógee donc ñu bëri xam nañ ko hmm. amul woon nag doole boo xam ne xëy na depuis deux mille buñ bi ko créé bari na changement d' administrateur ak yooyu mais bi ñu ko créé léegi mënuñu woon jël lu ëpp vingt cinq wala trente projets maximum par année parce que comme li ma la wax budget bi loolu la woon hmm. mais nekk président de la yokk na ko loolu ku ñëw bëgg ci xam dara dina dina am lu leer mais aussi beneen côté bi ñu war a leeral ci fond bi mooy. Hmm. financement des femmes de la diaspora ñoom seeni projet hmm. ci pays d'accueil bi lay nekk. c'est-à-dire ku nekk tey France. Hmm. nekk sénégalais mën ngaa déposer ji sa projet ca consulat ba ñu étudier ko boo waree am lu la jàppale ñu jàppale ndax président de la république dafa def touru Sénégal touru monde bi sax lay wax. déglu doléance nit ñi avant muy nekk président. mais benn ci li mu doon gis ci jigéen ñi. Mhm mais loolu dafa jur coow parce que dégg naa ñu naan ñu naan fond boobu tey ji femme femme APR yi nga xam ñoom ñoo nekk si diaspora bi ñoom ñoom ñoom ñoo si ëpp suñu ñuy financé. xam naa ne loolu xam nga man toujours damay ne rek li ñuy dégg ak li ñuy bind mënuñu ko tontu mais comme àdduna bi dafa am man personnellement ay believe in daada li américain di wax man donné hmm. ak li ñu bind ak lu ñu wane loolu laa gëm li nga xam ne moom la nit ñi di wax hmm. dafa leer naa ñu ñun dañoo yore ay kayit ku bëgg ñëw ci bureau bi ñu jox la nga bind nga compter mais les femmes APR sont des citoyennes sénégalaises les femmes du ah, PDS sont des citoyennes sénégalaises les femmes qui sont déglu ma rek sëñ bi ma tontu la hmm. xam nga nit ñi li ñuy wax hmm. ñu cey nekk di ci kii mais li may wax mooy hmm. la réalité par rapport à ce que les gens disent su dee da nga bëgg man ma wax la réalité bi mooy li tax fond bi jóg président dafa ne jigéen bu nga xam ne am na business soxla ndimbal fond d'appui la ñu wax dañuy supporter nit ñi ñii dañoo am projet bëgg ku leen ci jàppale ndax mi ngi waaj a wala am na problème hmm. ñii dañoo bëgg a def projet mënuñoo am accès au crédit parce que xam nga ne immigration dafa jafe hmm. ñii dañoo nekk bëgg def projet mais amuñu kayit peut-être pour dugg ci banque yi lépp wala taux yi ñu leen di teg bëri na président ne day yëkkati benn fonds ren la commencé hmm. ñu seet ci dëkk yi ñu ko mën bañ koy defee comme ay Amérique bi ñu nekk xamuñu woon ne demande yi dina bëri nii mais on a reçu plus de 234 demandes ci fonds wu quatre cent mille boo xam ne mu ngi si quatre cent mille dollars ni deux cent millions léegi bu ñu jotee fonds yi nag hmm. noonu lañ koy dañuy jël ay critères yu leer bi hmm. ko joxe mais xam ne nit ñi tam ku mu libre rek man dama yaakaar ne un président la la république wala un chef de parti hmm. mën na yëkkati xaalis pour parti am wax ne lii sama parti la loolu am na fi mën na yëkkati xaalis tamit ne sama waa sama waa dëkk la donc man li ma gëm te li ma gis te xam naa ne loolu la président loolu la ko tax a jóg. Hmm. mooy fonds bi c'est pour toutes les sénégalaises qui sont à dans la diaspora te du ñëpp nag mais dafa choisir dañu choisir ay pays yi nga xam ne fa la demande bi nekk ñooñu la koy jox. ci critères yooyu la koy jox daf ci bari ay femmes yi nga xamante ne tey jii ah, ñu ne ñu mel ni ñu nekk ñu ñu nekk ay ay ay Norvège ay Belgique dañ may faral di interpeller di wax naan ñoom naka la ñu war a mën a def ñoom ba bénéficier ci fonds bi ma leen ah loolu dina doy waar de. <laughs> dëgg la man dem Belgique. Mhm. Norvège dem ma fa mais dem Belgique. Mhm. def nañ fa tournée avec le ministre. j'ai fait Gand. Mhm. on a fait Luxembourg. on a fait Bruxelles. on a fait Anvers man le directeur des Sénégalais de l'extérieur. le directeur de l'habitat des Sénégalais de l'extérieur. ñun ñëpp dem nañu foofu leeral ak nit ña ñëwoon. wax leen lii lañu lii fii la ñuy jaar. nii lañ koy appui bi foofu xëy na nag yenn saa yi nit ñi dañ dul dem fu ñu war a dem mais ma leeralaat ko léegi hmm. chaque pays bu ñu dem dëkk bu ñu dem hmm. dañuy dem ci ambassade ba hmm. wala bu amee consulat foofu la ñuy dem ñu monté fa benn euh, montage institutionnel boo xam ne day composé wu ak ñu nekk foofu ñoo xam ne consul wala ambassadeur moo leen di tànn ñu nekk un comité de sélection ak comité boobu moom mooy xayma mooy jël demande yi mooy expliquer processus yi mooy moo leen di wax nu ñuy def demande bi demande bi nag projet bi nit ñi buñ ko bindee ba pare ak mm. fu ko mënti bindee kenn waxu leen orientation mais nañu xool dinañ leen wax critères yi tax mm. ñu mun ko bind. Mm. à Genève monsieur Traoré en Belgique monsieur Traoré mu nga fa def nañu comité war naa fi dellu sax pour ñu finir yëpp pour ubbi processus bi. mais tous les sénégalais su may liste bi ma yore même en Belgique rek on avait plus de cent cinquante sénégalais. à Bruxelles. qui étaient venus qui ont entendu l'information information. bon xëy na nag am na ñu bëri amuñu ko mais loolu mooy li nga xam ne bu ñu rap euh, rapproché wu ci ambassade bi hmm. am na canevas c'est-à-dire li ñu leen fa wàccal pour nii nga war a bindee projet bi hmm. lii la ñuy seet lii point lañ lay jox ci chaque critère parce que point la hmm. centaine de points la joxe dañu naan lii nga bind nii nii la lii nga bind nii nii la par exemple localisation projet pertinence projet bi yow mi ko bëgg def sa ex sa promoteur bi wala promotrice bi donc système de point la li nga expliquer sa projet ndax c'est un projet existant wala c'est un projet boo war a def bu bees la mm-hmm. est-ce que vraiment c'est pertinent et innovant yooyu yëpp ay points la bu ñu def dafa leer nañ mm-hmm. mën nañ ko joxe ci ñëpp di ko gis mm-hmm. donc ñëpp am nañ ko donc léegi ko amul information bi nag boo wootee fee suñu bureau wala nga yónnee email fee senex ak gmail dot com dañ lay yónnee information yi nga soxla yëpp bu ko defee yow nga seet nag li nga ci soxla même bu fekkee demoo consulat loolu tout wax naa ñëpp jox naa samay carte joxe nañu site bi ku fa dem boo yónnee email na dama soxla bind projet fu may dem dañ lay yónnee waat le même processus donc loolu mooy li nga xam ne moom am na mais nag. information des fois lu jaaxal nit tamit lu jaaxal nit ñi tamit dafa mel ni xaalisu Sénégal la jël di ko passer passer parce que lu tax may wax loolu. Mhm. dafa bari ñu naan. Mhm. amul benn garantie bi nga xamante ni moom la famille di joxe pour mën a jot ci ci xaalis boobu parce que dégg sax ñu naan wax naan am na kenn ci yéen sax ku doon wax xaalis yi ku ko fayu dootuñ dootuñ la lebalati donc mel ni